nako mu ne wa sawmu yubaidu yubaidu llahu naara an wajihi an wajihi an wajihi saahibihi weeru koor wala koor dafay soril li nga xamante ne yaa dafay soril safara ci xar kanam borom mi nga xam daf koy woor ki nga xam dafay woor weeru koor koor bu mu woor noonu day sori xar kanam bi li nga xamante moom mooy safara comme ni ko yéen saa sam waxee ci xadis mu ne man saama yowman fi sabilillahi baada allahu wajahu an innaari sabiina xarifan rawahul buxaari yéen saa sam neen képp koo xam woor na weeru koor woor na benn fan wooral na yàlla benn fan yaani saama yowman fii sabilillah mu am kooru naafile la kooru sunna yu mel nga woor ko te fekk yàlla tax waaw nee ne borom bi dafay soril saxar kanam bi lu tolloog soixante-dix soixante-dix kilomètres lu tolloog soixante-dix kilomètres kon mu ne fa ida kaana sawmu yowmi sawmu yowmun waahidun bi hazihi bi hazihi al afdaliya su nekkee wor benn fan ngëneel bii la am ci yàlla wal manzila ak dayo la am fa maa baalu ko bi siyaami shahri kaamil waaw ah lan mooy seen mbir ci ni kam ni ki dafa woor weeru koor ci 30 jours wala 29 jours kon bu dee nit ki bu wooree benn fan rek yàlla sori xar kanamam bi lu tolloog 70 kilomètres safara kon fa maa baalu ko lan mooy ah sa yitte ci nit ki nga xamante ne woor na weeru koor bu mu jeex tàkk lu mel ni 30 jours wala 29 jours kon kooku ñaata payoor la ko yàlla dencal wala ki nga xam dafa woor ñetti fan ci weer bu nekk lu mel ni ayaamul biit ko kooku ñaata tiyaaba la ko yàlla di di di ko dencal wala ñaata. kilomètre waaw moo xam da koy woor naafila tam mu nekk loo xam ne sunna lay doon aw gayri zalika min asiyaamil mashru wala ci mudul loolu ci koor yi nga xam dañ kaa yoonal lu mel ni ay yow mu arafa yu mel noonu nit ki xëy am yéene ngir woor ko rek yàlla sori xar kanamam lu tolloo soixante-dix soixante-dix kilomètres kon loolu dañ ciy déggee ngéneel bu nekk ci li nga xamante moom mooy koor na kon mu ne wa siyaamu wiqaayatun min ash-shahawaati koor tamit ab yaani fegu kaay la ngir mun a nit ki a xañ bakkanam ci bakkanam bi ci bànneexu bakkan ci bànneexu bakkan yi nga xam dañ koy def mooy mbir yi nga xam dañ koy def wala seytaane bi nga xam da lay jéema yóbbu say saxawaat mbir yi nga xamante yàlla dafa kaa tere woon bi ngay woor dalay day nekk barrage moom day dox sa diggante ak yooyu moo tax yéen saasam doon dénk jeunes yi doon dénk yi nga xam ne jeunes yi mooy woor mu doon wax yaa ma'ashara shababi man istata minkumul baa falyatazawaj yéen saasam doon denc dénk li nga xamante mooy jeune jeunes yi li nga xamante moom mooy koor mu ne e yéen ndaw ñi képp koo xam ne mun na denc si yéen soxna rek waaw na ko def waaw man istata'a minkumul baa'ata falyatazawwaj kon na gaaw def ko na gaaw marié takk li nga xam moom mooy soxna neen parce que takk soxna boo muy takk soxna mooy yém saasa ne fa innahu aghaddu lil bashari parce que moom mooy li nga xamante moom mooy damm ay gisam parce que bu doon yow munoo contrôler say bët di xool jigéenu jaamur yi di xool xale bu jigéen bu la romb nga xool ko jamono boo wooree da ngay mën sa bakkan ci loolu da ngay mën a fekk say bët ci loolu parce que da ngay naan su ma ko xoolee sama koor day yàqu bàyyi ma sàdd samay bët waaw ma def xadul basar waaw di nga nit ki bu wooree nu muy defee xadul basari par rapport bu woorul nit ki bu woorul daanaka day boyal bët bëtam yi rek lu nekk mu xool ko lu nekk lay xool fu nekk lay sànni ay bëtam waaye saa sam ne nit ki fekkente ne toll na si marié marié gul waa na marié fekkee marié gul nay ah, nay takkoo li nga xamante ne mooy koor parce que koor boobu dafay daf may xadul basar ki pour mun am xadul basar bokk na si saafara moom mooy muy woor ba tey ma jëm sax mu ne fa innahu aghaddu lil basari waaye wa ahsanu lil farji moom mooy gën a mun a gën ko mun a teel li nga moom mooy moom mooy li nga xam moom mooy payam waaw pour mu gën a mun a sàmm payam tey jii nii koor bi nga xam daf koy takkoo parce que nit ki xam ne tey niki bu wooree tey dafay sori lépp loo xam ne bànneexu bakkan la lépp loom daf lay jëmee ci njaaloo daf lay jëmee ci bànneexu bakkan daf lay jëmee ci mooy yàlla nit ki bu wooree daf koy moytu kon naka noonu ji nga boo woore da ngay moytandiku lu bëree bëri da nga naan daje daje jigéen sa nga nuyu ko léeg-léeg sax nga akolaat ko def ko naka su dul noonu waaye jamono boo waree nga gis ne lii dañ la kaa tere woor bi nga woor rek moo lay tere pour nga def lii kon nga gis ne jamono boo mariéegul booy takkoo lu bëree bëri da lay dem da lay may ragal yàlla da lay fekk waaye da ngay mun a am raddul basar nga koy def bu baax a baax da ngay mun a fekk sa bopp tamit mu fekk sa li nga xam moom mooy sa pays bu baax a ba dem saa sa mu ne fa man lam yastati fa alayhi bi sawmi ko am mënugul takk soxna boobu noonu na takkoo nga xam moom mooy woor waaye nay takkoo koor kon nga gis ne koor mu nekk saafara ci ki nga xamante xale bu góor la ah mot na marié waaye amagul lu muy marié moom nay na nay takkoo koor lu bëree bëri rawatina muy kooru sunna muy kooru lundi ak jeudi ak ayaamul biit waaw ki nga xamante ne nag marié ne ko neexee mun nay woor koor yooyu ndax tiyaaba yu bëree bëri moo si nekk waaye ku mu gën a baaxee nag moom mooy ki nga xamante ne célibataire la comme ni ko yéen saasam diggale woon ndaw ñi naka noonu mu ne wa sawmu yudxilul jannata min baabi rayaan koor bokk na ci ay dafay dugal nit àjjana ci buntu boobu ñuy wax rayaan ci buntu boobu ñuy wax rayaan ndax àjjana am na tolloo huit porte am na tolloo huit buntu am na buntu boo xam ne rayaan lañu koy wax mu ne comme comme ni ko xadis Sahl ibnu Saadi nettalee waaw li xadis Sahl ibnu Saadin radiallahu anhu yarfau ila nabi salaa sallam mu ne sa Sahl ibnu Saadi muy nettali mu ne yém saa sam mu ne inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayaan yém saa sam ne ne àjjana de am na buntu boo xam ne dañ koy wax rayaan nee na yadxulu minhu saaimuuna yowma alqiyaamati nee ne woorkat yi ñoo fay dugg yowmal qiyaama keroog bu ñu demee bis penc woorkat yi ñu doon woor ñooy dugg ci buntu boobu noonu nee ne laa yadxulu minhu ahadun gayruhum kenn du fa dugg ku dul ñoom kenn dugg ci buntu boobu ñuy wax rayaan ku dul ñoom woorkat yi nee ne yuqaal lañ leen di wax ayna saa'imuun ana woorkat yi fa yaquumuuna ñu daal di jóg ah mu ne laa yadxulu minhu ahadun gayruhum kenn du fa dugg ku dul ñoom ñoom ñooy mu ne fa ida daxalu buñ duggee rek uxliqa fa lam yadxulu minhu ahad buñ duggee ñoom ñëpp ñu daal tëj buntu bi kenn dootu fa dugaat kon loolu war na tax nit ki di woor waaw loolu war na tax nit ki di woor ngir mun a am àjjana bi nga xamante moom mooy rayaan ngir mu bokk ci ñu dugg ci buntu boobu nga xamante moom mooy àjjanay rayaan su ko defee ñu ñaan borom subhanahu wa ñu ci ñuy woor yàlla tax ñu mun a am di mun a dugg ci buntu boobu nga moom mooy rayaan kon koor bëri na ay ngéneel lool lool bokk na si ba léegi mu ne wasiyaamu kafaaratun li zunubi koor bokk na ci ay ngéneelam ba léegi dafay effacer nit ay bàkkaaram nga xam ne doomu aadama bis bu nekk lu muy def ci ay bàkkaar kenn xamul nu mu toll sa loxo lu muy laal ci bàkkaar kenn xamul nu mu toll li ngay jël ci bàkkaar kenn xamul nu mu toll dingay ngay tàllal kazalika say bët nag waxi noppi say làmmiñ bi say nopp say tànk fi nga koy yóbbu waaw koor nga gis ne dalay lay dimbali ci yooyu yëpp mu effacer la ay bàkkaar waaw moo comme ni ko Xuseyfa nettalee mu ne ne ne yéen saa salaam mu ne fitnatu rajuli fi ahlihi wa maalihi wa jaari tukaffiruha as-salaatu wa wa sadaqa ne fitnaal bu ñu fitnaal doomu aadama bi si li nga xamante moom mooy njabootam ak ci alalam ak ci dëkkandoom nee loolu yëpp da koy effacé li nga xamante moom mooy julli julli da koy effacé koor da koy effacé waaye saraxe tamit da koy effacé kon nit ki bu góorgóorloo si ñetti jaamu yàlla yu màgg yi nii yàlla mun na ko effacé bàkkaaram yu yu bëree bëri su ko defee bokk na si mu ne ngëneelu koor bu dee bu dee koor ak bu dee koor yéen saa sa mu ne wasiyaamu wal quraani yashfaani lil abdi yawmal qiyaama mu ne ak li nga xamante moom mooy alxuraan dafay ram mu jaam bi waaw dafay ñaanal intervention ki nga xamante moom mooy jaam bi kër ak bis penc waaw jaam bi nga xamante yàlla daf ko naroon yóbbu ko ko koor ñëw taxaw ah alxuraan tamit ñëw taxaw ngir ram mu jaam boobu noonu comme ni ko yéen saasam waxee waaw mu ne xadisa boo xam dañ ko jëlee ci abdullah ibnu amr mu ne yéen saasam nee ne asiyaamu wal quraan yashfaani lil abdi yowma alqiyamati koor ak alxuraan ñoom ñaar dañuy ram mu jaam bi yaani ëllëg bis penc dañuy rambu jaam bi nee na yaqulu siyaam koor dee ñëw taxaw wax ay yaa rabbi manatuhu taama wa shahawaati bin nahaari yow sama borom waa yow borom bi sa jaam bii de man maa ko tere woon ñam ñam bi nga xamante dagaroon na dagaroon na ci moom mu lekk ko guddi ak bëccëg heure bu mu ko neexee heure bu amee envie lekk mu dem lekk man maa ko tere woon muy lekk bëccëg wa shahawaati soxnaam bi nga am def kaa daganoon lew ko comme ni ko yàlla wax nisaaukum xarsun lakum fatu ko anna shi'tum seen soxna yi ah ñu leen lew lañ ñu leen dagan lañ dikkee leen heure bu mu leen neexee waaye weeru koor ñëw ñu tere la sa soxna si bëccëg weeru koor mu ne man maa ko tere woon bànneexu mu am da koy bànneexu si soxnaam waaw biir naxaari si bëccëg waaw kon yow yàlla fa shafi'ni fiihi damay ñaan nga ramb ko ngir ngir man mi fa shafi'ni fiihi naka noonu wa yaqulu alquran alquran tam day jóg ñëw taxaw wax mu ne yow yow sama borom naw ma bil layli yooyu yàlla man maa ko tere woon nalaw ci guddi su ko defee mu taxaw guddi di jaamu yàlla comme yàlla mi tagg jaama mi nga xam dañuy jóg guddi di jaamu yàlla rawatina ci weeru koor yaa kaanu qalilan min al layli maa yahjaun ñoom lu néew lañ daan nalaw ci guddi bu guddi jotoon rek dañuy jóg bàyyi lal gàddaay ko yëpp naafile yi mun na cee dugg guddi gi taxaw di jaam borom bi subhanahu wa di julli waaw ñëw taxaw ne yow yàlla man maa ko tere woon nalaw ci guddi maa daggoon ay nalawam su ko defee guddi yëpp daf ma daan fanaanoo jàng waaw kon ngir loolu ngir loolu mu doon def pour man mi fa nii fii maa ngi lay ñaan nga ramm ko ngir man mi xaala yéen saasa mu ne fa yashfa'an ñu daal di ramm ñoom ñaar ki nga xamante moom mooy jaam bi kon lii war na tax jaami di woor heure bu nekk war na tax jaami góorgóorlu si li nga xamante moom mooy alxuraan kon alxuraan tamit bokk na ci ngéneelam moom ci alxuraan weeru koor lañ ko wàccee yàlla wàccee ko ci guddi gu gën a màgg ci guddi muy guddi laylatul qadri weer koor saa yu ñëwee ñu góor góorgóorluwaat ci jàng alxuraan góor góorgóorluwaat ci yittewu téere borom subhaana taala waaye góorgóorlu ci xam alxuraan lu mu firi ñu pare pour jëfee ko waaye xam lu alxuraan firi ñu pare pour jëfee ko ndax alxuraan moom jàng bi na am am na solo lool lool bari na tiyaaba lool waaye jëfee bi pratique bi moo ëpp solo waaw parce que kitaabun anzalnaahu ilayka li yaddabbaru ayaati la yàlla wax téere la moom dama ko wàccee ci yow waa ngir ngeen seetantal aayam ngir ngeen li nga moom mooy aaya waa la boo xamante ne di ko jàmbar di ko setantal di ko def ta tadabbur ah di ko jëfee mu ëpp solo lool lool parce que loolu moo tax yàlla wàccee ko wàccee ko pour ñu koy jàngale waa def ko wàccee ngir ñu koy seetantal di ko jàng di ko xam pour ko ngir jëfee ko ala kulli haal léegi nit ki sonn ko di ko jàng guddi ak gëj bëccëg di ko jëfee kémtalaay kàttanam su ko defee ëllëg mu bokk si ñi nga xamante ne alxuraan daf leen di ràmm